kon boo mbokki Leewtoo TV rek xam nga ni ngeen ni ngeen ko xamee 100 pour cent làmb daa am ku ñuy wër parce que combat moo nekk coow temps yi ci dëkk bi moo tax ñu ñëw ci benn salle fii di ko seet xëy na bu ñu duggee si biir di ngeen xam kan la kon yàgg maar laa àndal tey sama waaju njool ji asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki Leewtoo TV internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar temps yi nag euh, dañ fi dégg benn coowu combat diggante Papa Sow ak Siteu ñi naan fay nañ Papa Sow lii fay nañ Siteu lii wax ji bëri yaa ngi dégg Siteu ñu seeti ko kera bi mu jógee Amérique di waajal MMA ñu koy nuyu di ko ziar mu ne moom kenn doxul komba bi papa itam moo tax na ñun ñu bëgg mu gën a leer rek ñu ñëw tey toogak moom ngir mu andi ci ay combat indi ci ay leeral sax laay wax di nuyu tamit promoteur bi ñu mu ngi koy dox papa. Euh, maa ngi lay nuyu di la ziar di la baalu ak si julli tabaski bi ñu jógee. waaw Babacar ñu ngi lay nuyu di la baal ak di la baalu ak di nuyu aussi mooy mbokk internet yëpp jaar na ko si Leewtoo TV di nuyu am di jàmm yeeg soppe yëpp quoi waaw. mais man li ma lay njëkk laaj tey dama la fekk ci salle bi fii ngay def ay gym la xaw ma sport yi ngay def nii xeet sport yi est-ce que mbër dina ko def. waaw mais xam nga làmb moom mu ngi doo a tëj. te nekk saison lëmm di entraîner sa bopp instant bi mënoo toog foo nga yëngal sa yaram. moo ñëwee mu la échauffé wu ma échauffement pare ma dem nekk sama liggéey entraîneur mais damay jugal tout droit rek li Sénégal yëpp bëgg a xam mooy sa combat ak Siteu dañu xëy liir bu yàggul ci fan yi passé journal kani Fallou Ndiaye fay na leen yéen ñaar kenn ku nekk 35 millions yow Papa Sow ndax Fallou Ndiaye dafa dox sa combat ak Siteu d'abord ñu ngi nuyu Siteu di ko ñaanal ci combat bi mu jëm nii di représenter réew mi comme ni ko waxee Sénégal donc yàlla na ko si ndam mu MMA bi mu war a bëre affaire États-Unis aussi ñu ko si ñaan bu baax a baax ñu koy ñu daal ñu koy jox suñu lox bu baax a baax di xamal ne ñu ngi ci am quoi la mu uti foofu yàlla ko ci yàlla defal jàmm defal ko ci ndam quoi lu kay njottam aussi waaw. Fallou Ndiaye daa ñëw ci yow proposé la Siteu. non man nag xaw ma si lu bëri père ba daal mooy waxtaan man xamal laa ci am combat taxaw na jugal internet jugal bërëje lu laa ci am wallaay azim aw ma ci leneen nag xëy na nag père ba. ci laa jon dina mën développe mais man bon man daal li ma ci mën daal mooy maa ngi ci làmb di bëre ku ma yàlla boole ma war a bëre yow rek par naa pour bëre mais dox nañ combat bi wala doxuñu ko waaw ah, peut-être ñu ngi koy dox Fallou Ndiaye dëgg mi ci doon dox mais xaw ma ci lu bari Fallou Ndiaye mi ngi ci doon dox am na ñeneen aussi nekk di nag xaw ma ci lu bari ndax it man aw ma loolu rek père ba waxaale combat combat taxaw na nan dem bëre ji laa ci am aw ma ci leneen aw ma ci midi à deux heures waaw euh, dañ la fay kasaw 35 millions dégg naa nga bañ non man loolu xaw ma ci. wala boog sa staff waa Fass dañ dañoo bañ ñoom 40 millions la ñuy laaj. Ah ci lu bari nag en tout cas daal loolu moom affaire cachet ak waxaale ak yooyu daal père si loxo père ba la nekk quoi xëy na père mën na ci développé man daal mooy di entraîné su ma entraînement bi jotee ma tax sama équipement dem entraîné su ma gisee combat dem bëri su ne baatax na daal ma bëri. nee nga ci sa biir wax ay promoteurs yi ñu ngi ciy wax ak ñeneen ak ñeneen maanaam sax xudul Fallou Ndiaye yan yeneen promoteurs yoo ci déggaat mu wax ci. <laughs> wax nii moom mu wax moo nekk ci boobu. moo yor domaine boobu moo yor affaire marque affaire négociation. papa yaay wàcc ci géew bi nag. waaw maay wàcc ci géew bi mais loolu du sama cër aussi tamit quoi man moom nit moom bu joxee cër jox naa la cër bu ci jënd ci leneen lépp lu ñu war wax ci affaire combat wallaay moo ci waxtaan jëmu ci xam dara su ne moom su ma demal bëri ji dafay un franc damay bëri kon daal per ba moo yor cëggal guyam. Ah, waaw moo yor cëggal guyam waaw. léegi su loolu baatu olof la la olof boobu am na solo léegi sa lan moo tax nit ñi mel nii wala boog am ñu ko bëgg parce que comme ni nga ko waxee dafa mel ni ñu ngi ciy dégg ñeneen ak ñeneen lu tax nit ñi def suwaawu Papa Sow ak Siteu. mais Siteu marchandise bu neex a jaay la aussi la boo bëggee dégg-dëgg mooy li may wax sama kër laay wax feneen. Siteu dafa bokk si ñeenti mbër yi dàq mobiliser ci làmb ji muy muy muy am. Euh, yan ñeenti a dàq ci làmb ji. moo dàq mobiliser ci làmb ji. non loolu kañ dafa leer Modou Lo Balla Gaye Ama Siteu ñoo fi dàq mobiliser wax dëgg yàlla. looloo am non looloo am looloo am ñun ñëpp ay mbër lañu ku nekk da nga mobiliser mais nag gis nga moom wax sa baaxuwaay du wàññi si sa mbaax daara gis nag dëgg nii nag lii moom lii xam nga loolu kenn du ko werante da nga ñëw stade gis làmb ñoom ku ciy bëre wax dëgg yàlla li nga indi si mbooloo macha allah looloo tax nit ñi def suwaawu papa ak Siteu. waaw mais tey xam nga tamit tey promoteur yi sponsoring bi xam nga bi tamit demeetul noonu ba tax na tamit combat neex am na fi am na combat yu neex a neex a neex mais nag bëgg lu neex nañ ba jël say ay cent cent millions ay quatre-vingt-dix millions cent millions def ko ci ci ngelaw li ah man du ma ko du ko digal sax promoteur man waaw du ma ko digal promoteur bu may tëgg daal damay tëgg mbër bu am ginnaaw ak mbëreen mbër waaw. mais Papa Sow Siteu nga yaakaar tam dugg ci moom nii daan ko est-ce que dina yomb bu doon jël nga combat am tey. non Siteu champion la yow Siteu champion la wax dëgg yàlla champion la Siteu champion la te mi wane ay preuve ci làmb ji Siteu kenn mënu ko bañ aussi Siteu kenn mënu ko bañ keneen keneen wane ay preuve làmb wane say la rek waaw boo see wane say preuve ba bokk ci bokk bi bokk nga ci. am na ñoo xam dañ ne est-ce que def ay risque bu duggee ci Siteu. non làmb làmb boo risque la ndax ñaar ñun bool ñu a bëri rek ku ne mën nga sa bu budul Siteu yan yan adversaire nga gisaat. adversaire yi bari na. kuy gi mi ngi fi. Sa Thiès mi ngi fi. kuy gi moom yaa ko raw mais du bëre ak la waxoon. oo ñaar mi ngi fi non adversaire ñu mën a bëre xam man may wax du wax li nga xamante ne tey jii damay wax li nga xam ne lamb en général bu ñeneen yeeg ñeneen ak promoteur yeeg amateur yeeg journaliste moom la ñuy wax man fa laay waxee. combat yi xamante moo fi nekk te neex ñu war a bëre bëre. mënut a weesu Papa Sow Boy Niang bu neex la Papa Sow Sa Thiès combat bu neex la Papa Sow Gouye combat bu neex la Papa Sow Siteu combat bu neex la. Boy boobu nga wax est-ce que Boy Niang su moom combat la. ah ñu Boy Niang ma sama combat ak Boy Niang nekk combat. dina bokk quatre kan ak kan. dina bokk Lac de Guiers 2. dina bokk Zos. bokk Les 2. ak kan euh, des na benn bokk Baye Mandione ma daan ñett yi kenn ki daan ma. moom mu daan ñaar ñaar daan ko. moom kan ak kan ko daan foofu. moom Lac de Guiers ko daan Zoss da ko daan waaw. yow nga daan kan ak kan foofu. man Lac de Guiers kese ma fa daan ma daan ñeneen ñëpp. Ah, looloo tax nga yaakaar ne war ngeen a ma rëb. non lamb daf ñoo boole ndax Lac de Guiers ba astafurlah boo ñaax mbër la champion dëgg la mais examen bi bu ko passé woon kenn du ko bañ ci lamb day mën a bëreeg Balla Gaye day mën a bëreeg euh, Modou Lo day mën a bëreeg keneen ak keneen ak keneen mais examen bi comme que ko aussi tamit ak lamb kenn sa bopp de. làmb kenn nag sa bopp mooy li gaa naan ay poule poule yooyu ñu def noonu division yi waaw division yi ñu def noonu ah poule 1 bi bu demee ba jeex tafaatin li ci mën a bëri te tafaatin balaa mu koy jël dina xool ba ñëpp jar buy jël boo ñaam mu doog ko jël tafaatin day xool ba ñëpp jar su boo ñaam tafaatin dafa bokk ci poule 1 poule 1 huit personnes la huit personnes kon yow jàppoo ci quatre d'accord ci quatre yi ñu wax non non non mënu nekk quatre huit yi kan ak kan la huit yi Modou Lo roi des arènes la Eumeu Sène deuxième position Bombardier troisième Balla Gaye 4 Lac de Guiers 5 Ama 6 Gris Bordeaux set Tapha Tine 8. Ah, noonu la kon yow noonu nga ko def. ñoo ñooy bëre ñoo ñooy bëre ala kulli yàlla léegi nag bu nee ba ñooñu ñu bëri seen biir bu dee Tapha Tine jarul moo boog boo ñaaw combat bu jaadu lay nekk booba ndax moo gën muy def ay année blanche année blanche di xaaraat yeneen mais bu ko neex aussi mu toog xaar mais ñooñu huit personnes yooyu ñooy poul A mais booy ñaaw bu bañee bu bu la bañee nag si lamb bu bañee bëre ak yow. waaw mais loolu moom la moom mais combat yi logique war a bëre xamante nañ moom man li may wax rek su may waxal sama bopp laa waxal keneen waaw combat yi ñi nga ne nii diw ak diw ñoo war a bëre diw ak diw diw dafa leer day leer waaw. xanaa Papa daa xam luy daan Boy Niang. non Papa xam luy daan Boy Niang xam ay làmb nga ma laaj ñan ñan nga war a mën a bëreel loolu nga ma laaj ci loolu lay wax. damaa gis nga lim ci Boy Niang kat lim ba adversaire yi ngeen bokk ak nam nam demee. ci Boy Niang nga wax ma expliqué ñu dugg ci benn sujet mooy développé foofu rek quoi waaw. mais daa am loo gis si moom maanaam ci. wala du caagin boo ñaa champion la bëri na fi ay combat ay série victoire yu bëri la longu ay at la tegale di ko daan waaw am ñëw am bëri koo xamante ne mbër bu naqaree bëreel la mbër bu naqaree bëreel te ay jëlam day néew ci làmb trop maa la wax loolu. ay dafa tam. jëlam ay jëlu la dëgër de ay lam day néew ci làmb. la dëgër lu tax. non façon bërëm na dafa wóor dafa assuré bërëm na bu assuré lay bërëm. kon su ma la déggee xanaa daa bokk ci mbëri grand ci làmb wala. waaw dafa assuré waaw waaw dafa dégg naa Balla Gaye 2 day bërki dé mu ne ku ko bëgg daan boo ko ñemewut xeex ak moom andi lu metti doo ko daan waaw xam nga Balla Gaye 2 mën na wax ci moom mais ñi nga xamante ne xamuñu ko miinuñu ko ku si jël loo war sa jël rek di nga focus dégg naa ko tamit moom lak mu ne moom moo xam ne moo man ci Modou Lo dara waaw mën na nekk bëri na ñaari yoon de ñamante nañu ñaari yoon ku nekk war nga xam sa morom lu muy lu muy saf waaw ñu daal daal ñamante nañ deux fois <laughs> Modou moom mu nekk la ko amee yow nga bokk si ñi nga xam ne mën nañ ne tey ci ñi gën a sës Modou Lo ci wàllum entraînement ak xelul di ko xelal ci làmb nga bokk bi ngeen di dem ci làmb ji ak lan ngeen préparé ndax dóor mu daanu da ngeen koo liggéey wala lu ngeen yóbbu woon waaw sant yàlla rek ñu nga xaar rek ñu ngi koy ñu ngi félicité avant maa ñëw si Modou Lo mën nañ ko ñu ngi encouragé Eumeu Sène wax ne démérité wul Eumeu Sène il a fait presque 22 ans ou 23 ans de carrière nga nekk ci kaw nekk ci mbëri nga xamante tey ñooy ñooy mbëri gën a jar wala yaay roi des arènes ci li nga def palmarès plus de vingt ans nga ko di koy bëre kon dafa am mérite ñu koy encouragé di ko wax ni lii daal du dara ci làmb làmb mooy dem làmb moo demee nu ñu mel na takkaat ay jaajam entre na góorgóorlu te xam ne am na nekk ci kanamam loolu la ñuy wax Eumeu Sène ñu koy encouragé bi grand bu jantal la bi grand la bi gëpp waaw li ci kanam yëpp yàlla na ay ndama combat bi boo ci ñëwee ni ko Modou bëre techniquement lu ngeen liggéey la waaw combat bi ma si ñëwee li ma si ñëwee dafa yomb ñun Modou la ñu koy félicité bu baax a baax a baax a baax di ko wax ne mi ngi doog commencé carrière pour man mi commencé di wax ni bon man mbër laa Papa Sow mbër la écurie Fass la bokk Modou Lo suñu rakk la suñu dëkkandoo la bu amee combat ñu ñëw ñun duñ doxal taxawaay entraîneur non non bu ma ñëwee rek eh, athlète laa mbër laa comme mbër laa comme Gora comme Franc comme Garga 2 keneen ak keneen ak keneen ba si écurie bi yëpp taxawaay mbër laa tax ndax da fekk Modou Lo ne am Pambay am Ibou Diouf am Aline John am Bolle boxeur am ndaanaan bi nag muy Père Ndiougo nga xamante la man bu ma ñëwee li ma ci mën rek mooy accompagner ko nekk ci ginnaaw bu ma gisee rafet nag loo xamante nii yokkute la ma ne ko ah booy su doo def nii defeel nii nii loolu laa ci mën mais mbër laa fa comme mbër yëpp mais xalaatu mu mën a dóor ah, dafa leer lu mu bëri dafa leer dafa leer lu mënoon am ci combat bi la waaw ah, lu mënoon am ci après tamit dégg nañ bi mu jàllee ay wax topp ci ba père Birame gën gën def conférence de presse ci côté roi des arènes beeg yu mel ni ki noonu yow roi wu Modou loo ci wax waaw ah, luñ ci wax rek ne ko <laughs> moom kenn gënu ko mérite roi des arènes Modou Lo wax dëgg yàlla mbër la boo xoolee ni mu toll ah doyul di mbëri ni mu toll boobu léegi nag yàlla bi koy jëmbale muy góorgóorlu ba tey dégg na roi des arènes daf koy ñaan rek mu yàgg ci ay loxoom quoi waaw. làmb ji tam en général ni mu mel nii parce que nañ actuellement mbër yi li ñuy fayee ko ëpp na ba tax na ak tamit mooy tonte bi Modou Lo ne du bëre kii kii ne du ma bëre kii jàppal bàyyi loolu est-ce que du taxaw taxut làmb ji taxaw nii. waaw làmb moom. ñaan ñu bëre ala kulli aal nooy bu ñu waree bëre rek dañuy bëre waaw muur nag man du ma ko defal choix adversaire am na staff am na ñoo xamante ne ñoo yor loolu ñun dinañ ko xool ki gën ci moom wala Modou dina xool ki gën ci moom lay jox leen ma diw. doo yaakaar moo gën. non ki gën ci moom moom moo gën a xam ñëpp waaw. am na ñuy wax digganteem ak Ama mënta ñàkk. waaw combat bu jaadu la mais nag xamal lamb tamit moo tey mooy roi des arènes Ama daaw bëriwul naam Ama tey kenn mu ko génne ci VIP mais Modou mooy def choix Modou moo def choix am waaw. mais moog Ama war na mën a nekk. waaw loolu làmb ji ñëw la làmb ñëw la làmb ji gën a neex kañ mooy tax <laughs> Ama Baldé Gris Bordeaux combat bu neex la. Ama Bombardier combat bu neex la combat yi jaadu la. xam nga tey ji tey bëreeg Bombardier moo gën a yóbbu bëreeg Modou suñu waxante logique. lu tax lu tax. non tey Modou day day di roi des arènes. roi des arènes ba. pare adversaire yi taxaw ci kanamam adversaire yu bëri choix yu bëri taxaw ci kanamam yu mu mën a ñoo xamante ne daanoon nañ ko ak ñoo xamante ne daan na leen mën na bëre ak ñoom mais Ama Baldé soo ma ko doon digal day dem jëli fee Bombardier fexe daan Bombardier dugg dugg ci biir waaw non boobaa kenn du ko bañ day dugg seen biir waaw boobaa mooy bañ li waaj naan mooy bañ waaw yaay bañ waaw. <laughs> mais fi may jeexale mooy sa écrit Fass ren moom dégg naa bu doon doonoon xale ya mu mu ña làmbaay ñaaw mag ñi bëriwuñu wuñu jot a bëree mbër mu mag nuñ koy waxe dañ koo daan jëlee bu rëy muy Gris loolu yow bëri Papa Gris Bordeaux bëriwul Lac Rose ñoom Forza écurie Fass lu seen problème. waaw sant yàlla rek. Gris de première défaite tam mi ngi bëgg a ci làmb boobu ba léegi mi ngi bëri di am ndam bu demee safaan ba rek dañ koy sant yàlla rek wax mu defarwaat te xam ne li ci kanam moo fuuf ah waaw loolu lañ koy wax. mais li problème mooy Gris boobu tax ténor yi tamit mënuñu am combat. waaw ah, li tax écurie su lamb ji am problème rek lamb ji moom maa ngi promoteur rek laa yaakaar. ah mais Modou Lo bëri na fi ñaari yoon ren Balla Gaye bëri Eumeu Sène bëri Lac Boy Niang écurie Fass moom gisuñu fa mbër bu mag mu bëri. waaw loolu la mënul ñàkk nag lamb ji ñëpp mënuñoo bëri quoi. <laughs> mais benn sax xanaa papa waroon naa sooxe ko boobu wala giri wala lagros wala forza. waaw ah, bu bëggoon sooxe ko moom mais nag yàlla mooy dogal quoi bu waree bëri di nga bëri quoi waaw. ba tey dinaa des foofu écurie bi parce que. coow itam xaw na fa bari de bruit bi jàppal bàyyil bi ci biir écurie waa waaw écurie Fass dafa am bureau am na président am na secrétaire général am na am na am na problème écurie Fass moom boo ko bëggee lijjanti ngay dem bureau écurie Fass ñoom dinañ la wax. waaw yow da nga faa ci ponkal de ci liñ koy waxee. mbër laa rek de mbër mbër simple laa mbër bu simple la comme que am nañu bureau daal bu demee daal bu am lu ñu lijjanti daal boo dékkee micro bureau bi dinañ la wax. écurie de lu ko daan contre rek bon ma li mu wax laa la waxaat rek xëy na man jege woon préparation bi jege woon préparation bi jour combat bi leen gise mun ma ci développé wax dëgg yàlla bu ma ci développé rek dinaa dinaa naafiq ndax loo fekk woon wàccaay moom mënoo ci wax lu bari li ma koy daal moom mu gën a góor rek na góor góorgóorluwaat làmb da ciy am cër comme li ma ko yàgg wax li ma ko yàgg wax làmb da ciy am cër na góorgóorluwaat te xam ne daal waaw mun na am lu bari ci làmb moom. Papa tey boo amoon lu mu war a wax soppeem yi ak faasuwaay yi ak waa parcelle. lan la leen di wax. waaw di wax rek non amateur lamb yëpp rawatina sopp écurie Fass yi sopp Papa Sow yi dëkkandoo parcelle yëpp di leen wax ni daal bon ñu ngi sàkku si yéen ñaan ñu nëpp ñu taal suñu loxo benn ñaan di wax ni daal bon la ñu daal bëgg nañ ci delluwaat incha allah rabbi fa mu newoon daal bëgg nañ ko fa yóbbuwaat yokk ñaan rek poussé ñu yàlla baax na. sa diggante ak tarkindaa bi de gaa koy reefee. waaw mais yëpp ay combats yu neex la yëpp ay combats yu neex la waaw ku ci yàlla dogal rek waaw ku ci yàlla. Papa Sow ku ci yàlla dogal rek incha allahu rabbi. te léegi sax mu ngi ca MMA ba nag. koy ñaan lay def day xeex xeex yu métti. waaw nag incha allah defal ndam wallaahi azim loolu lañ ko waaw loolu lañ moom nit parce que sax jaral nga ko xeex wax na ko ci vidéo. sama rakk la si la sama rakk la wallaahi sama rakk la boo la booy bu ma respecté sama rakk la bilaay sama rakk la waaw mais nag ñoo mën a mayante xaalis bu ñu waree bëre dañuy bëre. naa ko nag moom balaa ngeen de bu la jaralee xeex moom ngeen ngeen xeex arène nationale lay dàq <laughs> ay tëj barrière. booy bu kul la. combat yu neex la combat yëpp combat bu neex la. bëreeg Siteu bëreeg Boy Niang ñëpp ay combat yu neex ci Sa Thiès. ay neex la moom laa la wax rek. saa gaaw na de. waaw saa mbër la mbër kaamil la saa mbër la champion. vitesse la de. waaw champion du bàyyi action bu mattee moom bu mattee day dagg du bàyyi waaw. <laughs> mais moom seen combat mas nañ ko fay a dox de yaakaar naa ay yoon. waaw moom laa la wax sànq ma ne moom laa leen expliqué sànq mais xam naa ne dégloo baax ma ne làmb dafa toll foo xamante ne am na combat yi neex mais combat bu neex rek dama jël sama 100 millions ne combat bi dafa neex dama koy tëgg sponsor 100 millions xaalis la du ay foo ay caaxaan ay waa sama Sa Thiès combat neex la mais nag làmb ko amatuñu ay ay gunge booy tëgg da ngay tëgg borom ginnaaw bu rëy boole kaa combat bu neex waaw. ah ma promoteur xool benn mbër mbër bu xew laay jël ak beneen mbër mu neex mbër mu neex ak mbër mu laay boole ah ku ko deful xam. bu bëggee combat yi neex rek làmb yi dana neex dinañ dóorante dinañ bëre ba naaw waaye boo ñibbee sa kër moom ba compter say ticket rek boo ma jël doo guddi googu doo nelaw demal li nga doon une semaine fa doo loolu de moom yéene wuñ ko benn promoteur waaw moo tax nag man moom li may conseil sama bopp rek laay conseil ñëpp ah bu combat bi taxoon da ngay dem États-Unis préparé ji Sénégal ngay toog wala waaw comme que taxawagul ci wax lu bari xamagul fu ñu teg suñu tànk bu yàlla demoon ba ñu am combat la ñuy dox li bëggee ci combat bi kontaan naa ci yow non Babacar maa la gën a bëgg yow ak waa Leewtoo TV ah. am leen jàmm yéen ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp ah ci teg loxo bi nag sama papa nga xamante ni vraiment bu loolu moom mu ñaaw wax dëgg yàlla suñu père ba ak famem yëpp maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm ñoom ku ci mel ne grand Oscar grand Djili ah Abou Gueye Chéri ak sama booy yàqu yi ñoom papa Gueye ñoom seen jaam ak sama gaa yëpp ko ah. waaw di profité aussi tamit di wax boobu rek amoon jot mi nuyu ko muy waa occupé parcelle yëpp dama jóge si benn combat boo xamante ne vraiment dañ cay def lu ñu mën ak lu ñu mënul vraiment poussé ma maa ngi leen remercier ñoom ñëpp di ko dox teg ci loxo Amadou Ba Moussa si ak autorité parcelle yëpp. kontaan ci yow kon yàgg maar ah. noonu la demee woon parcelle Papa Sow dégg ngeen li mu wax leeral na kon moom jàpp na ne ko moom ak Siteu dox nañ ko. yaa ngi dégg xëy na taxawul am na yeneen adversaire tamit c'est normal làmb demee noonu Père Max na dama ko daan dégg mu ne làmb bu ñu la séentoo fit nga fetal bu ñu la séentoo fetal nga fit mais nuyu nañ ñëpp. ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm Papa Gueye ngi nii bu ministère des finance maa ngi koy ziar di nuyu sëñ daam mële kenn du moom moom tamit maa ngi koy bëgg bu baax a baax mais may ba du ma ko fàtte may ba maa ngi koy bëgg bu baax a baax <laughs> di nuyu père ba papa <laughs> waaw di nuyu aussi waa Top Fitness waa salle bi vraiment ubbi nañu bunt yoo xamante ne waaw affaire bi jege nañu da ngay entraîné taf taf yaa ngi sa kër lekk nga nelaw ko nopp nga waaw di ko ñaan rek muy grand Bousso di koy ñaan yàlla defal ko ci jàmm rek waaw. kon yàgg maar la woon moo newoon ci caméra bi doomu ndayu Kempes Moodu Maane dawal waaye ki nga xam ne mooy Moussa Fall mooy def montage yu rafet yooyu beneen yoon gars yi incha allah rabbi